sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey lay sant bu baax. ne sëñ Cheikh mi ñoo ngi lay sant bu baax. sa jotal. sa jotal. sa bëgg lu baax. ak sa bëgg lu baax. ak bëgg goo bëgg sëñ Fallou. moo tax fu ñuy tudd sëñ Fallou. nga teg fa sab tànk. kenn indi lo fi. kenn ji nee na moo ko bind. xam ne mënoo muñ sëñ Fallou. defal na ko ko poroxaan. ne defal na ko fa loo xam ne jomb na ko lool. waaye nee na amul payam. waaye nee na boole na ko ki la boole yow. muy sëñ Mamadou moo moo ko ci doy kenn doyu ko ci fan wu gudd ak wér ak jàmm ak xéewal ak njaboot gu barkeel amiin amiin sëriñ Abo Mbàkke sama ju baax ji toog na fii nga toog siggal ma lool siggal ma lool gépp sëriñ Abo sëriñ bi taxaw ne sëriñ Abo na fii siggal ko siggal bawol gépp di magam ju baax ji moom sëriñ mu mii dinaa jox yàqin ju wér ne sëriñ Abo sëñ Fallou la. dëkk bii. nee dëkk bii. mbedd moo dugg mënoo jàll. mënoo jàll ngir jàllab suuf. tabax étage. am na wala amut. nee am na wala amut. mbedd moo jaar xool leen ko. suuf si ak birig yi ñuy teg di te étage. nee ba mu fi ñëwee moom sëñ Abo. la wax ci làmmiñu boppam ne. dëkk bi dana soppeeku. ak ay dëgg ci ku ko gëm. ñeen ñu koy sant baax jataay ba mu toogee mat na ko sëkk yal na ko fi yàlla yàggal moom la ñëwoon ak nee nit ki nag loolu boppam Cheikh Oumy nee na nit ki loolu boppam. ñëw nee na ñëw na ci ndigalul sëriñ bi. mag ñi danañ ñi daañ fi yónnee. gone ñi mën a ñëw dinañ ñëw. gone ñi mën nee waaye ak ñëw moom Cheikh Oumy. addee waa kër sëñ la. addee na moo indi ko ci moom mii. di la xamal ne. nee di ko xamal ne. li fi ne. ne. ak la ne benn la. kenn ki rek moo ko liggéeyoon. ba mag ñooy bañ. kenn fekkewu ko. kon ginnaaw bu demee tee ba neex. fu ngeen woote. war na leen a gis. nee naa bu doon ñun taalibe yi kat. Ah. ah. ne dara du baax kon. ne ndax ba ñuy lànk ñoom mag ñooñu lànk neexut. kon bañ lànkee ba tey jii. ñu ne ñoom ñu ne tëggu ci kaw. ñu ne ci suuf. ne seen xel yi bankuñu ko ñoom. kon nee kon nag loola moo leen tax a jóg ñoom. ab xaritam la. ab soppeem la. ne da ko bëgg. ndax du tey. maa ngi yow ne moom moom ba ñuy jaxasoo. du tey ji ne loolu rek moo ko fi mbokkum taalibe mu jóg seeti mbokkum taalibeem. yàlla nañ ko teewee na gën déwén. ne dafa xat lool. waaye yendu fanaan la noonu def. ne waaye ginnaaw sëñ baa ngi fi. ñëpp ngi fi rek. sëriñ bi sëkk tey ëllëg